Euh, asalaamaaleykum Sénégal nekkatul réew mu am démocratie ak liberté fañ koo salfaañe allah réew mi yéene kaay moo ñu ko xamal ab rapport bu Freedom House moo ko xamle ginnaaw fitna ji am Sénégal mbiru Ousmane Sonko yi ak yeneen moo tax ñu jàpp na fi mu toll nii Sénégal fa deltu ginnaaw bu baax ci wàllu liberte ak démocratie te mooy yéene kaay dëggal ko ne lii kay fa ñaaw Sénégal bokk na ci réew Afrique yi gënoon a am démocratie ak liberté waaye jaay doole gi ñu nemmeeku fan yii ci mbiru Ousmane Sonko yi ak ñi ñuy jàpp di leen tëj caanam gu nekkul yoon ak ñiy def lu na wàng te dara du leen ci fekk ak yoon bi nga xam ne moomu boppam fi mu toll nii moo ñu jural lii lépp le quotidien yi ne kaay mel ni kuraan lii kay gàcce la suñu réew mi Sénégal fukki réew yi gënoon a am démocratie ci Afrique fa la bokkoon waaye léegi waa adduna bi génnee nañ ko ci vox populi na fitna jooju nag ginnaaw bu mu tàmbalee weeru mars tax na fi mu toll nii jeex a gudde yi fa mel ni ñu ràkkaaju fi mu toll nii ayaw ginnaaw Ousmane Sonko ba mu rëccee ci tëj gi ñu ko bëggoon a tëj kaso fi mu ni moom it Ousmane Sonko mi ngi wër di nemmeeku ci ay nit Khalifa Sall tamit dooraat na tournem yi doon amal ku jéeg politique gi ñu ngi amal ay ndaje waa APR yi ak parti leen di jàppale ñoom it ñu ngi waat di wane seen mbooloo ak doole les écoles yi na kaay na ko fi mu ni kay ay directeur ak ay ministre ñooy amal ay mitin ak i ndaje lépp ngir wane doole ak na fa ñuy jàppale Macky waaye li ñuy def noonu li tax mu soof amul benn xorom mooy Macky bi mu tollee diggante ci affaire Ousmane ñoo daw làqatu ji kenn ñu wax léegi bàyyi ba bi jeex ñu bëgg ñoo sonal ak i mitin fa ñoo bañ Macky dàq leen de ci gouvernement bi enquête yéen a kaay ne wàllu politique kay fi mu toll ne fa jaxaat Sénégal yaaw seetal Benno Bokk Yaakaar ña ngay góorgóorlu ngir dikkaat mbiru Ousmane Sonko yi tax na ku jege opposition bi yeewu waat Karim Wade moom yónnee na waa PDS yi fukki oto ak juróom benn yoo xam ne ay huit huit la xawma neuf neuf ngir ñu amal seen tournée laas yéen a kaay na Macky Sall moom ñi koy jàppale ministre am yéeg ñu ànd ak moom fi mu toll ni ñi ngi yàqal Macky Sall ngi koy rey ba mu dee ndax kàddu yi ñu yëkkati baaxul santut yàlla xamuñ nu ñuy waxee boobee ay toj toj rek tooxi doona lañ fi nekkee yaaw seetal maître Malick Sall ministre de la justice waxati na tojaange ginna bu mu fi waxee ne mbër yi ñoo génnoon doon ñaxtu mu mujj baaxalu xam nga lu mu waxaat nee na mboolem ñu ñàkk seen bakkan ci fitna ji amoon Sénégal ñoom ñëpp ay farandooru Ousmane Sonko ñoo leen rey ay exclusif yi ne kaay na keneen ku def tojaange ci farandooru mag yi mooy far Farba Ngom mitin bu mag ba mu dajale fële Matam lenn ca askano fañ ko doon yóoxoo takk ay morso yu xonq yëre yu xonq ñaawlu seen doxalin ne defaluñ Matam dara ba pare corona ba bu fa yokk lu ji njaaga Ngom mooy Farba Ngom mooy njaag ba tey exclusif yéen kaay jox kàddu benn militant Ousmane Sonko bu am betteel ci moom ma ngay wax la ko naqari lànk ne na deuxième wàgg ci ñaxtu du fi xamati moom bokkoon na si ñuy ñaxtu ba bakkanam tuuti konom mu des ci nee na ko yow Sonko fi mu toll nii ñun comprendre nañ la te Adji Sarr wax na mbir yu garaaw ah. le mandat kaay mel ni kuy tontu waaje na ko gis nga yéen ñii li ngeen di def yëpp ay manipulation la politique n contre Ousmane Sonko waaye dara xamul ci li ngeen di wax fa ngeen di jël sax koo xam ne farut ak Ousmane Sonko mu wax ngeen ne moom la République Ousmane Sonko nee na Macky ak ñim àndal fi mu toll nii fañ maa bëgg a def beneen complot pare nañ ci Adji Sarr xam nga luñ bëgg fi mu nii tuumal ma wàllu terroriste ca kanam Dame Mbodj la ko waxee moom Ousmane Sonko ba mu demee seeti ko critique yéen kaay na Sonko kay toj na yax ba nee gaañe complot terroriste lañ koy waajal nay leer li leer wal fajiri yéen kaay ba mu wax ko mooy Ousmane Sonko jamono jii mi ngi ut ay allié waaye na moytu am na ñoo xam ne buñ ko wane ne ay xaritam lañ tamit fekk loolu amul de li nar a am fan yi mooy Guy a nar ñu dem génn kaso càkkutéefu ni mel ma nga ca taabula attekat ba turbine yéen kaay ñi ko xamal libération na ko attekat bi ñu wax Samba Sall bi war a atte Ousmane Sonko waroon na tamit déglu ñoom Guy Marius Sagna fi mu doon ne fa feebar de benn ay bës a ngi nii Samba Sall fa feebar ba tax sax ñoom Guy Marius Sagna yeneen attekat yi ñoo leen déglu réew mi yéen kaay di ñu xamal ne Ousmane Tunkara bi nguurug Sénégal kalaame terroriste ci Amérique bañ teg ko loxo waa yaanaa maar wax nañ ak américains yi nee nañ leen Tunkara du terroriste nguurug Sénégal bëgg ngeen delloosi ko ci ak jaay doole les éco yéen a kaay moom di ñu xamal ne njiitiram Macky Sall fa dooraat dialogue national bi nee na leen fii ak weer laa bëgg ngeen jeexal liggéey bi ka ñu bëgg mu jeexal poste député ba mu yor mooy Issa Sall comme fi mu toll nii na parti boppam ne leen ko xamal le soleil yéen kaay xëy moom amal gëstu ci gone yu ndaw yi naka noona tamit lu ëpp ñaari junneey forage yi nguur gi taxawal ci àll bi laas yéen kaay ne fi mu toll ni njëgu dund gi fa cher Sénégal lépp a corona bi wal fa jëri kaay di ñu xamal ne ajug màkk ren boo moytuut nar naa métti ci sénégalais yi de ndax Arabie Saoudite seen condition ya fa métti lool boo moytuut sénégalais yi naru ñoo ajati ren màkka de Sud Quotidien moom di ñu xamal ne géeju Sénégal yi amatut jën nappkat yi sonn nañu lépp ndax déggoo bi réewum Sénégal xaatim ak mbootaayu Europe yi ñuy wànq suñ jën yi rek Moustapha Dieng syndicaliste la ne tubaab bi xam nga lu ñu fay Sénégal fukki milliards ci juróomi at te xamuñ ne suñ nappkat yi mën nañoo dugal ci réew mi lu ëpp fukki milliards ci at bu nekk laa wax Direct News moom di ñu xamal ne pharmacien yi ñu ngi ci ay jafe-jafe fa ñoo bëgg a tijji ay pharmacie yu bëri waaye autorisation moom lañ amut la amoon Gambie jàppante diggante lenn ci Gambien yi ak lenn ci ay sénégalais ca Sagna l'observateur xëy di ñu nettal na yëfee demee coono nappkatu sénégalais ñooñ fa bëggoon a rey ñu rëcc ak coow la lépp la leeral li leer turbine yéen e yu dem ca géej ga seen gaal ga suux ñu mujj faatu ñàkk seen bakkan allah yëf yaa nga amee sa caare sur mer Malick Kan mooy baay ja mook doomam Limaamulaay Njaay faatu nañu seen fota yaa ngi ci yéen e kaay ba ak ñeen fukki nappkat nag danañu faatu ci géej gi xat bu yàlla sàkk sénégal libération na loolu métti na de gaal gii nag ñetti nit ñoo ca faatu agum ka ñu bëggoon a faat mu rëcc ndax dóor yu metti yuñ ko dóor du kenn ku may benn agent seen o yaaw seetal waa daal fañ ko yónnee ne ko demal coupé ji compteur yi ca diiwaanu Mbàkke ndax fa xam ñoo xam ne ca askan wa fa ñoo bañ fay seen facture ndox yi source a yéene kaay ne waaj daal bi mu ñëwee ci kër gi ñu ne ko looy def mu ne faa di kuppe ndox ndax fayu leen ñu ne ko yow tey nga dee de fañ koo téye di ko mbuqi dañ koo dóor ba muy bëgg a Allah